Nous avons fii ci cabinet de Mohamedou Boli chirurgien dentiste. alors comme nous l'avons ko l'hygiène sànq hygiène bucco-dentaire moom la gis séance bi nga xam ne le euh, docteur Mohamedou Boli moom la defal euh, patiente bi. sûrement jàng ngeen ci mais nous dugg ci vif du sujet madame, hygiène bucodentaire. docteur Boli hygiène bucodentaire, qu'est-ce que nous avons fait alors euh, avant tout d'abord euh, maa ngi leen di remercier euh, di profito ci émission bi nga xam ne ne émission bi ñu njëkk def ci at bi di souhaiter les meilleurs vœux de bonnes et heureuses années à tous les téléspectateurs de des TV di ñaan yàlla atum jàmm lépp li nga xam ne lu ñu koy séntu ci at bi lu baax lu gën ci ñun yàlla defal ñu ko yàlla aussi seen télé mu am promotion bu weesu seen jot alors su loolu weesoo pour venir à sa question hygiène bico dentaire que nañ ko euh, résumer li nga xam ne bu nit pour géminam set géminam am wergu yaram bu war donc ensemble des yoy nga xamné ne mom la nit ki pour gémin gi set gémin gi am wergu yaram considérer lolu moy l'hygiène bico dentaire n'a nak euh, defo ëmb lu lu bëri li nga xam ne ne xam naa ne ci biir émission bi danañu mën a wax nit ñi yan pexe ak yan jumtuwaay la nit ki war a jëfandikoo la nit ki war a def pour am hygiène boobu nga xam ne ne mooy tax sa gémmiñ am wér-gu-yaram sa gémmiñ nga xam ne du am benn feebar. donc ci pexe yooyu brosse si la bokk lan mooy njëriñam. alors donc brosse ci pexe yi nga xam ne ne nit war na ko gën a jëfandikoo pour am. Euh, hygiène bi ko dentaire mooy gémmiñ gu set ci la bokk parce que boros boobu njëriñam day tax euh, nit kii bu lekkee ñam yi nga xam ne dafay des ci gémmiñ gi dafay kolewu ci bëñ yi boros boobu moo koy dindi parce que ñam yooyu bu nit bu lekkee dafay am ay desit ñam yi nga xam ne day kolewu ci bëñ yi yooyu di kolewu ci bëñ yi nag su fekkee nit ki borosewul éliminer ko gémmiñ boo gis dafa am ay bactéries bactéries yooyu nga xam ne ñam yooyu dañuy collé ci bëñ bi yooyu mooy seen li nga xam ne la ñuy dundee te bu ñuy dundee ñam yooyu dañuy sécréter li ñuy wax ay acide acide yooyu nga xam ne la ñuy sécréter ñooy ñooy ñëw di attaquer bëñ bi donc nit bu lekkee dafa war a jël brosam brosu ba mu set pour que euh, doomu jàngoor yi nga xam ne dañoo nekk ci biir gémmiñ gi duñu am fu ñuy jaar pour mën a attaquer bëñ bi parce que pour ñu attaquer bëñ bi il faut que ñam yooyu nga xam nit da lekk day des ci bëñ bi mu collé aussi mu def lu ñuy wax la plaque dentaire plaque dentaire boobu nga xam ne ne nag mooy milieu bu gën a propice pour micro-organisme yooyu nga xam ne ne bactéries yi moom la ñuy utiliser pour mën a jëfandikoo seen lekk ñam yooyu nag li ñuy jëfandikoo dañuy sécréter ay acides yi nga xam ne ñooñu ñooy ñëw di attaquer bëñ bi à la longue ñu créer lu ñuy wax carie mooy ñu bënd bëñ bi bëñ bi commencé di metti donc soo brossé donc loolu day tax mu éliminer euh, plaque de ce fait micro-organisme les bactéries yooyu du am fi dinañ pousser wu pour mën attaquer donc le le brossage fait partie des des des actes capitaux yi nga xam ne nit daf ko war a jëfandikoo pour que gémminam ji set xam naa ne ci biir yëpp dinañ wax na nañ leen war a brosser ak yëf yooyu. Mm, dëgg la euh, brossage boobu noonu saa ñu lekkee dañoo war a brosse. Mm-hmm. wala tamit brosse bi nan lañ ko war a defee est-ce que dafa am méthode particulière bu nga xam ne ni moom la ñuy def pour mën a brosse. waa effectivement parce que brossage bi dafa am méthode particulière bi nga xam ne moom la ñu war a kii pour nit ñi mën a brosse xam naa ne moom euh, tey dinaa wax nit ñi. ma won leen avec le forme à l'appui naka la nit wara brosser parce que nit ñu bëri dañuy brosse te fekk brosse wuñu te sénégalais pas sénégalais sax d'une manière générale nit ñi dañu am habitude parce que brossage dafa am moment yi nga ko def mais bo jëlee tay ñun sénégalais wala d'une manière générale boo joggé ci lal bi premier réflexe bi ngay def moy jël sa brosse nga brosse avant ngay génn alors que loolu ça ne sert absolument rien brossage nit dafa wara a brosse su lekkee ba pare parce que su fekkee da nga yeewu rek nga jubal sa biir douche jël sa boros boros soo paree nga ndékki nga xëy dem liggéey wala nga dem kon boros bi nga boros woon ban lam. la am parce que boo xoolee nee nañ la njëriñ brossage bi mooy ñam yi nga xam ne dañuy des ci bëñ yi pour ba pare nga jël boros bi digg ñam yi des ci diggu bëñ yi ak ci kaw bëñ yi nga mun ko dindi ba mu jeex ba nga xam ne ne doomu jàngoro yooyu du ñu mën a ñëw fekk foofu ñam yi bu koy utiliser ñuy créer acide yi nga xam ne bënn bëñ yi donc fekkee yow di nga yeewu rek nga jubal sa douche nga boros soo paree nga ndéki sa ndéki surtout bu dee nañ si def ay fromage yi nga xam ne dañuy gën a favoriser kii bi di collé wu ci bëñ yi nga dem liggéey kon xam nga brosse boobu kon amul njëriñ donc le brossage doit se faire nit ku da war a brosse après le repas donc boo lekkee ba pare si nga war a jël sa temps nga brosse donc brossage bi tamit dafa am méthode de brossage parce que méthode de brossage boobu je pense que aujourd'hui ci la ñuy insister ci la ñuy insister pour wan nit ñi naka la ñuy brosser te brossage bi tamit lu mu néew néew néew néew néew pour mu am effet bu gën war na jël au minimum deux trois minutes ba six minutes boo xoolee tey c'est rare nga gis nit kuy jël deux minutes di ko def ci gémminam pour brosse taf taf rek na ñuy def même pas trente secondes nga yàbbi dem alors en ce moment efficacité brossage bi nga xam ne dañ ko soxla woon doo ko mën a am léegi damay jël modèle bi pour ma mën a expliquer nit ñi naka la nit war a mën a brosso bëñ dafa fixé où ci biir yax yax bobu bi fixé wu moi li wax os alvéolaire donc ci yax bu mu fixé wu dafa am li nga xamné né mom moy relier bëñ bi ci yax bi li relier bëñ bi ci yax bi lool la wax le desmodonte hein donc moy li nga xamné né moy sertir bëñ bi ci kaw bi couvrir lépp légui bëñ bi nak nu fixé wu ci biir yax bi su fekkenté nit ki jëlul hygiène bi hygiène bu war doom euh, ñam yi des ci diggante bëñ yi day dugg bu duggee ci diggante bëñ bi ak yax bi mu indi li ñuy wax poche parodontale poche paradontale boobu dafay fees dell ay doomu jàngoro yi nga xam ne dañuy nekk di lekk euh, waaw siddit bi nga xam ne ne moo téye bëñ bi moo moo tax bëñ bi fixé wu ci biir os bi nga yax bi nga xam ne ne moo téye bëñ bi donc bëñ dafa fixé wu ci biir alvéole supposons que li bëñ bi la génné ko rek mo wan len gis ngeen bëñ baangi ni nii génn na boo doon def légui eh, wéki bëñ bi da ngay jël bëñ bi pikiir ba paré def li ngay def jël sa pince xëcc bëñ bi nga génné ko hein ah? légui bëñ bi da fay dundou li par exemple supposons moi, moy représenter nerf bi nga xamné ne ne ci innervation générale ñeu dugg ci racine bëñ bi ñëw innerver bëñ bi ba taxna na bëñ bi da fay day lu ak lu ak donc bëñ bi nga dara ak ci yegg ben problème bay am acide wala lu am sucre nga problème touti. donc

la plupart du temps bo xolé tay sénégalais buñu ñu buñu borosu ni daal la def la plupart du temps c'est comme ça que nous faisons ni ñi bu voilà comment on fait dañuy yéw rek téye sen brosse di borosu jël borosu voilà li yaa ngi borosu mais daanaka borosu woo parce que le but du brossage néna len moy ñam yi nga xamné ne dañoo nekk ci digënté bëñ yi ak ci kii bëñ yi nga génnee ko léegi yow su fekkee yow da nga jël sa brosse ngay brosse nga téye brosse bi rek nee nii xam nga su boobaa fii bit brossage bi mooy éliminer surtout ñam yi nga xam ne dañu nekk ci li ñuy wax les espaces interdentaires mooy diggante bëñ yi parce que diggante yi mooy ñi nga xam ne ne soo brossewul bu baax ñam yi fi nekk brosse bi du ko mën a laal ñoom ñooy eh, fii lay doomu jàngoro yi di ñëw jaar fii nag buñ jaaree fi ñu dugg ci diggante bëñ bi ak yax bi léegi euh, ligament bi nga xam ne ne moom moo taxoon bëñ bi fixé wu ci yax bi ñu éliminer ligament bi nga xam ne ne léegi dara dootul téye bëñ boobu mooy ñi nga xam ne ne bëñ seen bëñ duñu bënn duñu def dara mais dañuy jékki-jékki rek bëñ yi di yànq di wadd nga xam ne ne dañuy jékki rek bëñ yi di yànq di wadd léegi brossage bi nag euh, lu ci am solo mooy ñam yi nga xam ne dañuy des ci diggante bi pour que brosse bi mun a dindi ñam yi léegi su fekkee nag da nga jël brosse bi rek di nee nii xam nga boo xoolee fii boo jëlee brosse bi nee nii boo xoolee ni brosse bi du egg ci biir boo defee nii da ngay effleurer rek. donc brosse bi du laal diggante bi normalement. donc à force chaque jour ngay brosse nii sax da ngay dem ba fii nii ci diggante fi bëñ bi yéem ak bi da ngay dem ba créer fii par exemple ben abrasion. day dem parce que fii day am benn trait bi xam soo koy brosse sax boo ko laalee day fay sensible. day sensible da ngay dem ba dootoo ko ñeme brosse donc brossage bi toujours pour que un brossage soit efficace pour mu gën a leer ci bopp nit mi brosse bi toujours dafay jóge ci ciñ bi dem ci bëñ bi toujours de la gencive vers la dent au lieu de faire ce mouvement là mouvement bi du ras bëñ bi ni côté bi donc da ngay jël toujours brosse bi da nga koy ni nga départ ci bi nga nga dem ci bëñ bi voilà le mouvement qu'il faut faire hein pas ce mouvement là mais on part toujours de la gencive vers l'âne Les boo définis, nii da ngay gis fibre euh, brosse bi nii fibre yi day dugg ci diggante bëñ yi gis nga boko ko da gis nu muy ci digante bi donc bépp ñam bi nga xam mu ngi ci biir da donc là il faut toujours poser la brosse et aller de la gencive vers la dent pour que bépp ñam bi nga xam mu ngi ci digg yi mu ko éliminer léegi nak da ngay étape par étape pour sauter motax ñuy wax brossage souvent deux à 3 minutes hein? parce que bo commencé fi da ngay tek sa brosse toujours de la gencive vers la dent mais pas ce mouvement contraire parce que bo on mouvement le ni da ngay décoller gencive bi gencive bi bi bu ah, partie bi nga partie sensible xam dañu am récession day dem ba sensible donc boy def mouvement contraire au lieu que bi yow da donc brosse toujours de la gencive vers la dent c'est comme ça qu'on brosse les dents toujours de la gencive vers la dent hmm? ça le mouvement bi def c'est pour le bas boo gisee ñu de la vers là dent bu doon léegi ci kaw laa au lieu ma def mouvement bi je vais faire le mouvement contraire mais pour que téléspectateurs spectateurs, mën a toujours boy boros da ngay teg sa boros ci ciñ bi ngay départ nga jëm ci bëñ yi nga xam da ngay insister pour que fibre boros yi mu mën a dugg ci espace interdentaire bi nga xam ne ñam bu fi nekkoon da koy éliminer ba mu donc boo téyee sa boros parfois nag soo def ci l'impression que boros woo parce que dañoo tàmm defoon un mouvement violent rek di di xoos ni mais lii moo ëpp solo parce que boo xasee bu dugal brosse bi nii sa biir gémmiñ euh, joue bi hmm, lex bi da koy coincé donc pression bi lex bi di def moom moo lay dimbali pression bu muy def de telle sorte que di nga mën a tax les fibres kii bi mën a dugg bu baax ci diggante bëñ yi hein, avec le petit mouvement c'est un petit mouvement comme ça hmm, un petit mouvement qui va toujours de la gencive vers la dent hmm. boo ñëwee fii ci kanam bu dee ci suuf boros bi nii nga koy téye nga téye sa boros toujours ngay dem toujours comme ça mais doo def mouvement bi parce que boo defee mouvement bi da ngay wàccee ciñ bi toujours de la gencive vers la dent toujours de la gencive vers la dent boo ñëwee ci biir aussi même chose nga kii sa boros toujours de la gencive vers la dent hein? nga def étape par étape boo ñëwee fii par exemple nga taxaw fi pendant 30 secondes nga avancé nga taxaw pendant 30 secondes mu leer na ne do sët ben étape bo defee ba ci ben partie bi paré nga wat benen partie bi tu fais la même chose boo ñëwee ci kaw aussi comme ni wax toujours de la gencive vers la dent voilà comment on tient la brosse toujours de la gencive vers la dent pour mën dindi ñam yi nga xamé ñu ci hein? sinon aussi tu peux faire un petit mouvement circulaire un petit mouvement circulaire sans pour autant faire ça parce que li mom day abrasé beñi té fekk du éliminer ñam yi nga xamné ñu ngi nekk ci digënté bi bo ñëwé ci kaw brosse bi ni nga koy téye toujours de la gencive weer waaw euh, explication yi xamna naa leer nañ gannaaw euh, brosse bi. Mhm. ban méthode la mëna mën jëlaat pour gëna mëna mën a euh, suñu bëñ. waaw léegi souvent nit ñi. dañuy jël socc yi pour dindi ñam yi nga xamné ñu ngi ci biir bëñ yi c'est pas trop recommandé parce que souvent nit ñi ni ñu koy utiliser dañuy agresser lu ñuy wax papille gingivale papille gingivale bi mooy li ngeen di gis nii nii lii nii lii jóg nii lii li xonk lii ah hein? lii nii bu bi ngeen di gis nii lii mooy li ñuy wax la papille gingivale léegi à force ngay jël bant yooyu di ko dugal. ah da ngay agressé maanaam kër yi ñuy jël di loxoti bañ yi waaw demee ci xew yi bu ñu añee dañ leen koy jox ñu koy génnee ni mhm. donc force nga koy jël mën nga dem ba agressé lu ñuy wax papille gingivale. te papille bi boo ko agressé mën na créer mën na dem ba indi la feebar. Ah? Mhm. parce que nit ñi ni que léegi da gis nii sax buy jël bant bi di ko dugal ruuf bi day neex ci moom ba nga xam ne day nekk di agressé kii mhm. léegi lu gën mooy pour faire le complément. ñu utiliser lu ñuy wax par exemple un fil de soie dentaire. Mhm. parce que parfois brosse bi dana am fi nga xam ne ni xëy na du fa àgg léegi fil de soie dentaire bi nag pour nga utiliser ko. day jaay ci pharmacie day jaay ci grande surface yi fu ngeen dem mën ngeen ko am ci grande surface yi léegi da ngay jël euh, kii bi nga dagg ko nga def ko nii say loxo. Mhm. léegi boo ko kiiyee da nga koy duggal ci diggante bëñ yi waaw léegi boo duggalee nag ci diggante bëñ yi ba bësee ba kii bi dugg rek mhm. léegi da ngay def mouvement de retrait ah saa dire boo xasee ba bës kii ba mu dugg. rek mhm. da nga koy pusaat ni si kaw pour nga xam bu dee ñam def am ñam lu nekkoon ci kii boo ko dugalee nii boo ko yëkkatee rek. Mhm. mun a génne ñam yi léegi lu ce qu'il ne faut mooy boo dugalee nga jël fil bi di ko def nii parce que mhm. booy def nii da ngay agressé papille gingival bi. boo koy bës nii ciiñ bi nga nekk di agressé.

tu moins parce que gis nga li am solo ci ci ci nettoyer bañ ci brossage du pat bi pat bi euh, adjuvant la rek complément la rek li am solo c'est la méthode mécanique bi nga xam ne da ngay jël di brosse sa sa gémmiñ parce que bu la neexee tey brosse bi soo jëloon même si c'est un peu savon nga def ko ci mën nga brosse sa gémmiñ wala sans dara mën nga jël euh, brosse bi nettoyer sa gémmiñ ba mu set parce que boo xoolee socc amul dara et pourtant day nettoyer léegi nag socc bu fekkee nit amul bros, mun na utiliser soccam di nettoyer gémminam mais li ñu tàmm di gis c'est-à-dire que sénégalais souvent surtout ay période de corps ñi dañu am de mauvaise habitude mm-hmm. am na ñi nga xam ne à longueur de journée foo leen gis ñu ngi yore seen socc kooj kooj kooj kooj kooj comme bëñ nag dafa am la dent est composée de plusieurs parties dafa am lu composé bëñ dafa am li nga xam ne ne partie bi nekk ci kaw bi hein, nga xam ne ne moom la ñuy wax émail émail boobu mooy parti bi nga xam ne ne mooy protéger bëñ bi ci euh, toute sensibilité nga xam ne ne ak variation thermique parce que émail boobu mooy protéger bëñ bi comme nee woon naa leen bëñ dafa am ay nerf yu innervé dafa am ay nerf dafa am ay vaisseau dafa am yëpp pour que nit ki bañ a yëg benn sensibilité il faut que mu am émail bu sain émail mooy parti bi nga xam ne ne boo signé moom la ñuy gis léegi partie boobu mooy protéger béy bi ci bépp variation technique ci bépp qui euh, des sucres des acides ak mais na su fait ne nag yow da nga yore si soccu à longueur de journée ngay frotter frotter frotter da ngay dem ba émail bi da nga koy éliminer. Mhm. léegi boo éliminer émail bi rek yaa ngi ci lu wax dentine. Mhm. dentine boobu nag foofu la innervation yi dañu àgg foofu de ce fait foofu ni buy naan lu tàng ak lu sedd da koy sentir dootul ñu ñemee sax daanaka boros parce que am na ni ngay dem ba gaañ sa ba ba agressé euh, comment on appelle émail bi ba àgg ci dentine bi dootoo mu ñeme sax boros côté boobu boo ñëwoon sax parce que boo ko laalee day sensible donc comme hygiène bi nga doon wut léegi finalement euh, tu tu te prives même de l'hygiène parce que dem nga ba agressé boobu ba foofu ñeme doo ko boros donc soccu baax na.

mais il y a ce qu'on appelle aussi les maladies parodontales maladies parodontales moi bien pour faire bi nga xam ne dafay attaquer cin bi attaqué euh, desmodonte bi mooy fi nga xam ne bëñ bi fara wara a samp mun nañu dem sax ba carie bi évoluer lu ñuy wax cellulite cellulite mooy ki nga xam ne day dafa xëy gémmiñ gi neew donc carie feebar yi mu war a kii dafa bëri à telle enseigne que la santé d'une personne c'est-à-dire wér-gu-yaram nit dépend de l'hygiène bucco parce que def am li nga xamné def am solo ci nit moy li ñuy wax digestion digestion mooy boo lekkee euh, fi processus bi ñam yi di jaar ba nga mën a dem toilette évacuer ko gémmiñ moy première phase de la digestion donc su fekkente ni nit ki amul gémmiñ gu bax amul bëñ yu baax wala dafa manqué ay bëñ yu bëri wala dafa am problème parodontal ci ñi dafa feebar au moyen de contact bu ko laalé muy nàcc muy saigner kooku du mëna déjà lekk correctement parce que dafa am lu koy metti donc su fekkente ne yow yeyoo ñam yi nu mu waree donc day sonnal sa gémmiñ day sonnal digestion bi su fekkoon tey da nga waroon utiliser par exemple dix milli nangam de sucre gastrique comme jotoo woon yëy bu baax ñam yi li nga nar a produit ci sucre gastrique dafay bëre ba nga xam ne digestion bi du facile donc su fekkee gémmiñ gi dafa am feebar ba nit ki du mën a yëy déjà ça lui prive de une bonne mastication c'est-à-dire du mën a yëy bu baax su fekkee tamit da nga manqué ay bëñ yu bëri doo mën a yëy bu baax donc nit ki da nga war a am gémmiñ bu set pour nga mën a mastiquer pour nga mën a yëy bu baax de ce fait mu faciliter sa digestion parce que une personne qui ne digère pas bien mën na dem ba indil les colopathies mooy feebaru biir yooyu nga xam ne mm. mën nga dem sax ba hémorroïde parce que doo doo doo yëy bu baax donc mën na dem ba indil hémorroïde donc gémmiñ daal dafa nekk lu am solo ci hygiène générale du d'une personne mm. donc feebar yi comme ni nga waxee en dehors des caries il y a ce qu'on appelle les maladies parodontales yi nga xam ne ne tey mën dem jàpp lépp li nga xam ne tissu de soutien de la dent muy tiiñ bi muy as os alvéolaire bi muy desmodonte bi mun na évoluer comme ni ma wax ba dépasser yooyu yëpp ba attaquer yos os bi ba nekk li wax cellulite mun na évoluer sax ba nek euh, ay améloblastome yàlla euh, yàlla musal quand même mun dem sax boo ko fajul ba nekk un cancer hein, si on ne soigne pas donc euh, dans une maladie bi nga xam ne dafa commencé nit ki ñëw dem seeti dentiste bi c'est vraiment utilitaire pour le patient et pour le praticien nga faj feebar ci début bi que nga sàggane ko muy dem ba nga xam ci mhm. et là aussi je lance aussi toujours euh, une recommandation bu leen xaar ba seen bëñ di metti ngeen di dem seeti dentiste il est conseillé ne serait-ce que une fois par dem seeti dentiste mu defal la benn check-up xool sa gémmiñ parce que léeg-léeg mën nga am carie bi nga xam ne ko parce que kari bi que ci émail bi rek la yem du xam ne ne am nga kari parce que force du metti léegi nag su fekkee yow da nga demoo dentiste da ngay jàpp ne rek amoo kari parce que yëgoo metti kari boobu day évoluer évoluer ba bés bu demee bay commencé metti cela veut commencé na xóot. mais ñun looloy suñu problème ñun Sénégal amuñu culture di dem ci dentiste tant que suñu bañ bënnul ba jeex wala suñu bëñ mettiwul ba sonal ñu duñu dem ci dentiste. waaw c'est pourquoi ma ma ma lancé appel boobu comme disait ce proverbe mieux vaut prévenir que guérir léegi nag nit ki bul xaar mukk ba sa bëñ di metti nga door a dem euh, gisi dentiste c'est vrai que gars yi dañuy jàpp xëy na soins dentaires c'est des soins de luxe wala yooyu la c'est pas le luxe dentiste ba gémmiñ dafa nekk partie bu ëpp solo ci nit parce que comme ni ma ko waxee pour nga am wér-gu-yaram bu baax il faut nga am gémmiñ bu baax parce que soo lekkul doo nekk en bonne forme te pour nga mën a lekk il faut nga am sa bëñ bu sa gémmiñ feebare doo mën a lekk nit bu lekkul du taxaw mm. kon feebar da lay yomb pour mu daam la nit am na ni ngay manqué ay bëj sa comportement sax envers les gens dootul mën a nekk parce que da ngay am complexité taxaw ci nit ñi pour di di di xool di wax ñu fekk tey da nga am jaar donc nit da nga war a am bëñ yu mot bëñ yu normal pour que nga mën a jaakaarloo nit ñi di wax parce que boo xoolee nit ki am na ni ngay manqué am na yenn bëñ yi nga koy manqué am na ay araf yi nga xam ne sax doo ko mën a prononcé doo ko mën a prononcé j'aime bien toujours citer exemple boobu parce que amoon naa sama benn malade bi nga xam ne ndeysaan imam imam boobu dafa ñëw ci man benn jour pour en consultation après mu ne ma ah docteur man daal sama gémmiñ gi yépp amul bëy mais am naa problème parce que su may def sama xutba nit ñi fidèles yi dañu ne man li may wax duñ ci dégg dara parce que du ma mën a prononcer comme il faut lan mooy solution bi mu ñëwee comme gémmiñ gi amul woon benn bëñ ma ne que le fait nga ñàkk bëñ day tax ba doo mën a wax normal doo mën a prononcer wu normal suñ la demee ba appareil la ba montel la say bëñ ba nga retrouver sa gémmiñ normal di nga mën a continuer di waxaat correctement mm-hmm. effectivement bu yàlla defee mu ñëw ma réappareil ko gémmiñ gi muy prononcer son serment correctement ba fi may wax ak yow ni góor yi génn na mais ses enfants chaque vendredi dañuy wàccee kaamil ñu ne docteur ñu ngi lay yaana yaa ci barke alxuraan le papa n'est plus là. Mm-hmm. c'est pour vous dire combien les dents sont capitales. combien l'hygiène mm-hmm. bucco-dentaire mm-hmm. léegi dañuy ñëw ci hygiène bucco-dentaire ci xale yi parce que je crois que xale yi ñoom ñoo ëpp solo. Euh, xale bu juddu am 8 mois ay bañ commencé di génn mu di ko jox euh, yaram buy tàng. Mhm. fan lañ ko war indi ci dentiste bi wala ci pédiatre bi. voilà une question très importante parce que euh, nous travaillons quand même en euh, multidiscipline parce que euh, dentiste bi ak pédiatre bi souvent dañuy travailler de pair ak diabétologue bi ak même cardiologue bi parce que boo xoolee léeg-léeg am na cardiopathie yi nga xam ne ni bëñ. tànk yaa ngi am bëñ bu feebar bii nekk ci kii lu mel na ay handicap du dorsal yooyu nga xam ne dañoo ci tànk yaa ngi am problème bëñ streptocoque yooyu nga xam ne dañuy jóge foofu di dem ci kër gi def lay greffe ossélienne doo mus a faj sa malaat bi nga xam ne dafa am problème cardiaque la plupart du temps ñun cardiologue yi ak diabétologue pédiatre on travaille de pair parce que cardiologue bi tay bu amé malade bi nga xam ne cardiopathie systématiquement ils koy chez ci dentiste pour recherche de foyers dentaire infectieux mm. parce que moom mënul faj parce que pour nga euh, une maladie on doit soigner la cause de la maladie mm-hmm. et non les conséquences mu ngi mel na tey nit chaque fois mu lay na sama bopp day metti nga foo toll nga koy jox paracétamol rek muy naan paracétamol boobu traitement symptomatique donc c'est-à-dire de calmer mais pour que mën a euh, vraiment qui, il faut ce qu'on appelle le traitement étiologique nga dem ba xamné li moy cause bi nga mën ko mm-hmm. euh, comme li nga wax on travaille en multidisciplinarité en interdisciplinarité euh, xalé bi ak pédiatre bi ak dentiste bi mm-hmm. parce que question bi nga posé poser? am solo souvent xalé buy ce qu'on appelle éruption dentaire éruption dentaire moy feeñal dafa un phénomène bu metti ci xalé parce que xam nga buy génn xale buy comme loolu aussi il faut préciser ko balaa maa ñëwaat mhm. euh, na mais ñun ci suñu euh, ak suñu culture xale bu ak rek sax dañ koy mhm. ne un démon wala wala mhm. un enfant peut naître avec les noms, du mais fii ci suñu aada comme nekkul li nga xam ne ne on a l'habitude ci devoir ça si ça se produit xale boobu sax dañ koy denc duñ nangoo sax mu génn nit am na mën na am ce qu'on appelle une dentition précoce parce que souvent pour ba ñuy feeñ mën nga dem ba ay 4 mois 5 mois mais nit mën na am 2 mois rek ba ñuy commencé di feeñ comme nit ki mën na dem ba am ay 1 an sax léeg-léeg duñu am benn bëñ donc c'est ce qu'on appelle la dentition retardée l'ensemble phénomène bi nga moi ne ne mooy tax bëñ bi bu xale bi juddoo di am bëñ muy saxa saxa sax ba bënn ciñ bi ba génn la wax éruption dentaire phénomène bon nag dafa metti ci xale su bëñ yi demee ba commencé ñëw war a bënn ciñ bi bien xoolee xale bi am na instant fu muy toll buy nàmp yaayam fu mu toll day màtt yaay ji da ngay gis yaay ji may màtt foofu ciñ bi dafay xasam ah y a ce qu'on appelle le prurit gingival signe bi dafay xasan xale bi il a envie de gratter ça loolu mooy tax muy jàpp ci suñu yaayam di ko màtt noonu foofu bëñ yi bu demee bay waaj a génn bay waaj a bënn signe bi dañuy xasan ils ont envie de gratter ça moo tax ñuy màtt seen yaay léegi nag pendant que muy génn muy percer gencive bi foofu dafay am ce qu'on appelle une inflammation qui est très très douloureuse xam nga lépp inflammation souvent c'est accompagné de euh, fièvre mm-hmm. donc loolu mooy waral xale bi yaram bi di tàng léegi nag yaram bi bu tàngee noonu chez l'enfant, toute élévation de la fièvre est souvent accompagnée de diarrhée parce que xale souvent bu fièvre bi élevée, rek. lu si gën a bëri day ànd ak biir bu bu la plupart du temps effectivement et c'est normal le réflexe que les parents ont bi ñu xalaat ni souvent mën na nekk xale bi dafay feeñal dañ eu yóbbu. ci mais heureusement que les pédiatres la plupart du temps systématiquement On bu ñuy enfants, xale dañuy xool gémmiñ dañuy xool nopp. Mhm. léegi bu ñu xoolee.

mais vous faites fekkente nag dafa dépassé ay 48 heures 72 heures en ce moment le pédiatre mën nga dem pédiatre bi est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie générale qui est cachée derrière mhm. mais c'est une phase quand même très difficile pour l'enfant parce que xale bi bu tolloo ci phase il boo xoolee xale bi parce que du mun a parce que gémmiñ gi day metti donc le fait que xale bi du nàmp dafay fait des fièvre. le fait aussi que xalé bi du du du namp ak ki bu tang bi ak yaram bu tang bi da kay jox mhm. imagine toi Jare. ak yaram bu tàng doon nàmp te sa sa kii daw subitement l' enfant va se déshydrater. dëgg la ci xale yooyu sax la ñuy desaat parce que bu ñu amee trois ans gis nañ ne seen bëñ yi day foq. Mhm. léegi buy foq mbokk suñu mbokk kaw-kaw yi ñoom xamuñu yóbbu ko ci dentiste bi. Mhm. ñoom ñoo koy buddil seen bopp rek est ce que le fait ñu ñëw buddil ko suñu bopp noonu rek mhm. du agressé gémmiñ bi wala. waaw loolu loolu du yoon parce que euh, éruption dentaire bu bëñ bi bu xasee ba sax. dafay am lu ñuy wax phénomène de risalise c'est-à-dire que euh, xalé buy juddu day am li ñuy wax dent de lait mooy bëñ yi nga xamné ne supposons ñu wax daan nàmpukaay yoy parce que dafay am 10 ci kaw ak 10 ci suuf 10 dents de lait yooyu ah dañu dafa am li ñuy wax les dents permanentes les dents définitives yi nga xamné ne ñoo ko war remplacer donc bëñ bi ci nekk amna bi nga xamné ne ne dafay saxaat ci soufam pour mun ko pousse léegi bëñ boobu nag suy sax ci suuf pour mun a puus dandele bi day dagg racine bi c'est-à-dire que boo wekki woon tey li ñuy wax dandele souvent doo ci gis li yëpp comme bu ngay xoolee xale bi ma wekki loon sànq bëñam bi amul amul racine dafa fekk dans de définitive bi rongé na racine bi yëpp donc à force mu rongé racine bi comme neew naa leen bëñ bi dafa sampu ci yàq ak am lu ko téye léegi su dee racine bi dafa dañ bëñ bi day yànk ba nga xam ne effectivement ak sa loxo sax mun nga ko def nii mu dañ mais nekkul la gën parce que parfois bëñ bi mën na fekk risalis bi taxukaa yànk à ce point léegi nag xam nga bëñ buy metti nga bëgg a téye di ko amul anesthésie amul dara vous voyez que c'est inhumain loolu c'est c'est pas normal donc yooyu je conseille les parents xëy na jamono bi ñu ci tollul woon peut-être dentiste amul woon anesthésie amul woon on pouvait se permettre nit jël doomam di xëcc bëñam ji mais ci jamono jii ñu toll nii man du ma conseiller benn wayjur moom muy jàpp bëñu doomam di ko xëcc di ko dindil boppam parce que bëñ bi toll na fu mu war a fokkee donc loolu nekkul lu gën quand la dent est en phase de rhizarrhise terminal moi je conseille aux parents yóbbu leen seen doom ci dentiste bi mu xool parce que moom moo habilité moom moo mën a xam war na xëcc bëñ bi dindi ko wala war a xëcc dindi bëñ bi parce que téye sa doom téye bëñam di ko xëcc amul anesthésie amul dara quand même je pense que lolo c'est pas une bonne recommandation. que santé le terme, bi y a euh, ay méthodes de substitution par exemple dañuy conseiller faral di conseiller nga jël bu fekkee da nga am de bouillie, nous nga jël carbonate. nga diko galandiko, wala bo de sa bagn weex nga jël carbonate nga koy galandiko wala citron. Mhm. Euh, est-ce que loolu yéen dentiste yi. Mhm. conseiller ngeen ko. alors euh, conseil bi may jox nit ñi il y a tellement de publicité mensongère yi nga xam nit ñi dañuy publicité yi nga xam ne ay ay ay duñu wax daal dëgg xam nit ñi dañuy jéki jéki né la voilà amna produit bi nii boko défé sa gemine bo ké rek ba ñi wéx tal ba ñuy il faut que les gens fassent très très très attention parce que souvent produit yooyu ñuy utiliser dafa mel tay nga jël ben yax rek yax on nos ben yax soo jëloon tey yax bi nga jël acide nga sotti ko ci yax bi fépp fi acide bilal, laal boo xoolee foofu day gën a weex beneen partie bi mais boo jëloon tey pousse, wala weñ bu dëgër fi acide bilal, laal boo defoon nii facilement da nga koy gratter partie boobu day mou, day kii c'est le même effet que produit yooyu gars yi di wax di weexal lay am ci bëñ bi c'est-à-dire que c'est des produits à base de peroxyde d'hydrogène wala ñu jël acide nga xam dañ koy appliquer ci bëñ yi léegi à force d'appliquer ci bëñ yi séance tenante dana weexal sa bëñ mais bu weexal bëñ bi day af day day day day fragilise parce que émail bi la nekk di yàq te neewoon naa leen émail bi mooy partie bu gën a capital ci bëñ parce que moo koy protéger léegi nag soo demee ba éliminer sa émail day dem sa bëñ yi day deviennent sensible dootoo ñamati naan lu tàng dootoo ñamati naan lu sedd donc il faut que ñu ñuy éviter loolu par contre nag su fekkente ne nit ki dafa am ci biir gémminam ay tâches yi nga xam ne dañ koy tuddee tarte tarte moy souvent tache yi ngeen xam ne tarte c'est différent de filérose filérose moy ñi xam dañu am genre bañu ñu kawlak bu ñu kawlak moom munoo fexe ba euh, def li ñuy wax détartrage ba mu deñ parce que ci biir yaxu bëñ bi la nekk donc boko doon xoss tamit ba suba mëno fexé ba mo weex bu fekkee borom amul problème filérose filérose mooy ñi nga xam dañu am genre ba ñu kawlak su fekkente ne li ma leen waxoon sànq dafa am bu nit borosul gémminam dafa am lu ñuy wax la plaque dentaire plaque bi bu fekkente ne éliminer woo ko dafay évoluer évoluer ba tarte bu xasee nag ba nekk tarte mooy tache yooyu nga xam ne dañuy ñuul wu si bëñ yi foofu ngay dem ba boros bi dootu ko mën a dindi foofu il faut nga def lu ñuy wax détartrage lii la ñuy wax le cavitation, moom nga xam ne moom la ñuy utiliser pour éliminer euh, euh, tache yooyu nga xam ne dañu nekk ci biir gémmiñ léegi su fekkee tarte rek la boo xasee ba def mën nga retrouver des dents très propres parce que le détartrage moom du laal émail bi yi parce que c'est des vibrations que ça fait ça n'agresse pas l'émail donc day éliminer taches yi nga ñu ngi retrouver ce bëñ yi en tout cas moi je conseille aux gens d'éviter les blanchiments parce qu'à force de faire les blanchiments su qu'il y a un problème de filureuse dentaire muy bëñu casement bëgg bëñ weex weex rek xamal yaa ngi agressé sa bëñ à la longue bëñ yi dañuy devenir sensible te na nit ñi xam tamit le blanchiment n'est pas définitif c'est-à-dire boo ko defee léegi nga toogaat ay quelques années bëñ yi dañuy ça revient ah, ça revient donc moi le conseil que je donne aux gens qu'ils évitent le maximum les blanchiments seen bëñ yi te fekk daal bëñ yi amul fluorose amul dara nañ ko éviter le maximum possible léegi euh, ci toujours ci haleine bi parce que yaa ngi wax ni nit ñi dañuy utiliser ay bicarbonate ak yoy yoy c'est pas méchant jël bicarbonate yokk ko ci ndox nga gargariser wu amul ben problème hein c'est comme les bains de bouche tay nit bo brossé wu parce que bains de bouche c'est des antiseptiques en fait ah ñoom dafay am ay ci ni ñu ko liggéeyee ay yi ci def yi nga xamné doomu jangoro yu nekkon ci biir gemin gi dañ leen di ray c'est ce qu'on appelle les antiseptiques mais lolou tamit nit waru ko utiliser permanemment parce que à force aussi d'utiliser benn de bouche yi douze mois sur douze dangay dem ba euh, parce que ci gémmiñ gi dafa am ay doomu jàngoro yi nga xam ne dafa am solo. dañuy protéger am yu nga xam ne dañuy parce que les sucs gastriques tey bu fekkoon danga doon lekk dara nga dugal dara sa gémmiñ nga mën a xam lii dafa saf suukar wala lii defa saf euh, xorom wala lii defa saf kaani dafa am ce qu'on appelle les sucs gastriques les sucs euh, comment on appelle ça digestifs yi nga xam ne ne ñooy nekk au niveau euh, ci terminaison yi ci ci biir gémmiñ gi mi nga xam ne moom mooy tax nga ngay am cafte boobu léegi su fekkee à force d'utiliser les bains de bouche da ngay dem ba éliminer euh, sucs yooyu nga xam ne moo doon tax ngay yëg cafte bi donc à force d'utiliser des bains de bouche plus de une semaine mën nga dem ba da ngay détruire la flore buccale donc bains de bouche bi warul nekk li ngay utiliser permanemment

mën leen expliquer vraiment l'hygiène bucco-dentaire surtout les méthodes de brossage l'importance gémmiñ bëñ ci nit donc nit ki war na fonk war fonk parce que gémmiñ mooy lépp parce que le sourire reflète vraiment euh, la vie reflète la personne parce que quand amul bëñ do mën a do doo mën a wax da ngay complexé dans le donc conseil du may jox nit c'est dem leen dentiste une fois au moins par an dem des defi consultation hygiène bucco-dentaire de les remercier vraiment ci li nga ni ne nii wax nañ ko ci am nañu yaakaar xëy na téléspectateurs yi li si jub ñu xam ne ne si suñu borom la bu dëng amee tamit ci ñun la di leen sant vraiment euh, di leen gërëm ba beneen yoon incha allah rabbi euh, téléspectateurs yi aussi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ay bés Voilà, ça a commencé depuis Nema. Vous Nema a gouvernance presque à 5 ou 10 km. Moi, je me suis dit, la manifestation, de d'émé, suis je suis c'est le cas. Il mais l'autre tax ko moom xam. force démocratique MFDC existe avant. tant ñom Ibou Ibou Diallo et mhm. autres. Ibou oui. Mhm. existé parce que ñom ñoko sous parce que euh, dañuy dé mouvement spontané. arrêtez-le et ayez la main lourde. Mhm. waaw Moi, un langage policier mon nañu l'autorité de ba Bienvenue dans votre minute TNT. Le sujet d'aujourd'hui s'intéresse à comment reconnaître le vrai décodeur homologué et estampillé TNT by SCAF, comment l'acquérir et comment l'installer. Sujet numéro 2. Dans le précédent numéro, vous aviez vu tout le mal qui s'est donné pour regarder la télé. Aujourd'hui, il décide de faire un grand pas vers le numérique. Issa, lui, a décidé d'aller chez Escaf Telecom pour acheter son décodeur TT by Escaf. Yen tamit mën revendeur yi nga xamantene ñu ngi partout fii ci Sénégal ngir mën a jënd seen décodeur TNT. dama ñëwoon pour jënd si décodeur TNT by Escafy. ñaar yi ñoo ci nekk ñoo ci am. bi mo ñëk génn mujjee Il est important aujourd'hui de reconnaître le vrai du faux. Il existe seulement deux décodeurs TNT by Escaf qui peuvent recevoir parfaitement le signal numérique. Nous ngi 25 000 25 000. à Issa. Il vient de faire un grand pas vers le numérique. Maintenant, il reste une étape très importante qui est l'installation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais non, Issa. Jarouliya, installer son décodeur TNT, c'est comme un jeu d'enfant. Tout d'abord, il faut bien vérifier si vous avez la bonne antenne, c'est-à-dire l'antenne râteau, et si elle est bien orientée pour recevoir le signal. Étape numéro 1. Installez votre carte dans votre décodeur. La puce est orientée vers le bas et au fond du décodeur. Étape numéro 2. Si votre téléviseur ne dispose pas de connecteur HDMI, veuillez brancher votre câble RCA et c'est encore plus facile car les couleurs vous guident. Étape numéro 3. Mettez le câble de l'antenne EHF à l'entrée RHIN de votre décodeur. Et enfin, étape numéro 4, installez l'alimentation électrique du décodeur puis le raccorder sur une prise électrique. bravo Issa gis nga installé nga sa décodeur TNT te amoo ci benn problème ñuy fàttali ne yéen ñi ñuy seetaan tamit te xaw a am tuuti jafe-jafe ak seen décodeur TNT suñu équipe ñu ngi sur le terrain dinañ ñëw ba ci seen biir kër loolu nañuy woowee euh, campagne ñemeeku sa tente phase 2 waaye bu leen fàtte nag ndaw yi nga xamante ne ñoom nañuy yónnee carte bii nañ leen di wan bu ñu ñëwee seen kër looloy firndee ne agent wu TNT by Excaf lañu lii lañ leen indiloon tey euh, ci seen minute TNT dinañ jox daje beneen yoon cette chanson-là, bien, bien, bien. Ouais, ouais, je crois que Nilo... Euh,